Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Euh, euh, le 23 septembre 2023, la Convention universelle du Baol euh, a organisé les journées de l'excellence. Les journées qui ont été euh, par la résidence Cheikh Ahmadoul Khadim de Darul Manan à Touba. Le lieu a refusé du Euh, on a noté la présence d'importantes personnalités euh, du monde de l'enseignement, du monde euh, académique, euh, dont d'éminents professeurs, des hommes de lettres ont pris part à cette manifestation. La convention du Bowel a voulu organiser cet événement pour motiver les élèves, pour motiver les parents, à motiver leurs enfants à euh, s'inscrire dans cette dynamique d'études et de recherche du savoir. Euh, chez Ahmadou Bamba, notre maître nous dit c'est là, aux jeunes, évertez-vous dans la voie de la droiture et de la recherche du savoir. Inch'Allah Rabbi, avec notre technicien, nous allons euh, vivre ces moments intenses de remise de récompenses aux meilleurs bacheliers de la région de Djebel et aussi aux fils de Touba qui se sont illustrés euh, dans les concours internationaux de la récitation manifestation du Saint-Coran. bala ci guddi suñu Mbacké Maram soxna maam Fadi Cheikh Mouhamadou Mourtada l'ambassadeur de l'islam l'avocat des immigrés. waroon ñu lan lu dul ak taalibe wàccuwaay yéen a yàlla may ci bopp ci sëriñ bi da koo def ab téye def ko laxasaay fas yéene ko liggéey de sëriñ Touba. sëriñ Cheikh Mbacké représentant du khalife général des Mourides. à qui nous souhaitons santé et éminence représentant des différentes familles religieuses de Touba et du Sénégal. Éminence euh, le parrain de la journée, calife de Serigne Mourchouda, Serigne Mamor Mbake Mourchouda, ici représenté par Serigne Saliou Mbake Mourchouda, le directeur général des écoles Al-Azhar. Monsieur le ministre euh, Galoba, ministre de la fonction publique, euh, représentant l'État du Sénégal dans son entièreté. Monsieur le gouverneur de la région de Diourbel, Mesdames et Messieurs les représentants administratifs des différentes villes et communes de la région de Diourbel, Mesdames et Messieurs les représentants des établissements scolaires de la région de Diourbel, chers parents d'élèves, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et grades, tout protocole observé. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'honneur qu'il m'échoit de prendre la parole devant cette auguste assemblée organisée par la Convention universelle dont l'objectif est d'encourager et de soutenir les meilleurs bacheliers de la région à travers notamment la rétribution des primes d'excellence. Vous conviendrez avec moi que le choix du lieu, du moment et du parrain de cet événement hautement symbolique pour la promotion du savoir et de la connaissance sont triplement significatifs. D'abord, le choix porté sur Touba se justifie par du fait que Touba est une de lumière, de réflexion et centre de connaissance. Revisitons ensemble ces, ces quelques vers de Cheikh Ahmadou Bamba formulant en 1887 alors qu'il fonda sa ville de Touba. Fais de ma demeure la cité bénite de Touba, un sanctuaire de une cité de droiture, une source de connaissances et un pôle de l'agrément d'Allah. La coïncidence heureuse de l'événement avec l'ère de Serigne Mohamed Mountakha, qui a inauguré récemment pour la ville de Touba cette gigantesque université d'une valeur de plus de 30 milliards, dénommée Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim. Nous remarquons sans équivoque que la khilafa de Serigne Mountakha a donné à la recherche et au savoir un nouveau souffle qui s'illustre entre autres par les innombrables ouvrages publiés ces temps-ci par les fils de Touba et de la région en général. Le choix de Serigne Mamor en tant que parrain de cette édition organisée à Touba est aussi à féliciter. En effet, il dirige aujourd'hui le plus grand réseau d'écoles privées au Sénégal, Al-Azhar, et a été également le premier à construire à Touba une université fonctionnelle accueillant les bacheliers venant de tout chers élèves, particulièrement les meilleurs bacheliers, je m'adresse à vous. La Convention vous distingue aujourd'hui en guise de reconnaissance de vos efforts. Sur ce, je vous souhaite une excellente suite des travaux en vous remerciant de votre aimable Je rends à Allah subhanahu wa qui nous a permis de tenir sur le sol du vénéré Serigne Touba Khadim la deuxième édition de la fête de l'excellence. Je remercie vivement notre Khalif général Serigne Mountakha Mbacké pour avoir autorisé la tenue de cette édition dans la sainte maison de Serigne Touba Khadim Rassoul. Je prie Allah lui prêter une très bonne santé et une longue vie. À Serigne Mamor Mbacké, président de l'Institut Al-Azhar, notre parrain et à notre président d'honneur Serigne Abdourahmane Mbacké Gaïndé Fatma Khalif de Taïf. je dis merci pour la constance de leur engagement dans la recherche de l'excellence recommandée par notre vénéré khalife Serigne Touba Khadim Rassoul mais aussi dans celle des connaissances source de progrès pour notre développement économique et social je témoigne devant cette auguste assemblée de l'intelligence la noble ambition dans l'efficacité la courtoisie la modestie avec lesquelles notre président Pape Ibrahima Fall conduit notre projet sous la dictée de son amour profond pour les fils du Bawol, ainsi que sa ferme volonté et détermination pour le développement de la région. Président, soyez en vivement remercié et félicité. Me tournant vers les récipiendaires, je les félicite vivement et les encourage à poursuivre le chemin de l'excellence, endossé et chevilé aux enseignements de Serigne Touba Khadim Rassoul. Vous avez fait le sacrifice qui est de réussir et de nous rendre heureux en tant que parents. Nous avons fait de notre de vous honorer et de vous encourager dans la voie de l'existence à l'instar de vos devanciers. Comme je l'ai dit, l'édition précédente, et veut le rappeler, pour celle-ci, l'excellence est au cours des orientations et recommandations de l'illustre et vénéré Cheikh Serigne Touba Khadim Rassoul, qui a enseigné la charia islamique et exhorté les jeunes à la recherche permanente et inlassable du savoir. Je rappelle que le Cheikh nous a exhortés à acquérir le savoir pour nous accomplir ici, nous assurer une récompense certaine auprès de Subhanahu wa Ta'ala. Nous endossons sur ces enseignements la magnanimité et l'amour pour son prochain, recommandé par notre vénéré guide. Je voudrais à cette occasion proposer que notre convention désigne un comité qui travaillerait avec les équipes pédagogiques des écoles du Bawal pour une maire prise en charge de nos autres enfants afin d'examiner en eux les compétences dormantes et les installer dans la voie de l'excellence. C'est dans la pleine mesure que Serigne Mountakha Mbacké a ordonné l'université Khadim Rassoul sur la terre du Bawal. pour des enseignements théoriques et pratiques ouverts au monde moderne, mais adossés sur une fois islamique solide, comme enseigné, voulu et recommandé par Cheikh Amadou Bamba Khadim Rassoul. Au nom des populations du département, j'exprime ma profonde gratitude à la Convention du Bawal. Je vous remercie. Monsieur le Président de la Convention universelle du Bawol, messieurs les présidents des cellules de Touba et de Mbacké qui nous ont reçus, mesdames et messieurs les récipiendaires, honorables invités en vos rangs, titres, grades, tout protocole respecté. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour avoir bien voulu prendre part à cette cérémonie dorénavant installé dans l'agenda des honorables fils du Baol. Il est important de rappeler que la Convention universelle du Baol est une convention apolitique et à but non lucratif, créée depuis les années 2000 par d'éminents dignes fils du Baol. La Convention a pour but principal d'œuvrer pour le développement socio-économique et culturel du Baol, mais aussi de tout le Sénégal en général. De faire cultiver un esprit d'entraide et de solidarité entre les fils du Baol et du Sénégal afin de pouvoir lutter efficacement contre la pauvreté, le chômage, euh, l'analphabétisme, l'exclusion, les violences subies par les femmes, la protection des droits des enfants et partant d'améliorer les conditions de vie et d'existence, et d'intégrer aussi, d'une manière générale, toute initiative conforme à son objet. Mesdames et messieurs, il faut reconnaître que depuis sa création, la Convention accorde une importance capitale à l'éducation, en ce qui, ce qui témoigne les multiples actions en faveur du développement du capital humain notamment l'organisation annuelle des journées euh, d'excellence. L'objectif principal des journées d'excellence est de reconnaître et de célébrer l'excellence académique des nouveaux bacheliers de la région de Diourbel. Ces événements visent à encourager euh, la poursuite de l'éducation de qualité et à inspirer les élèves à exceller dans leurs études. Continuez à travailler, à travailler dur dans l'endurance, comme recommandé par Cheikh Ahmadou Bamba. Chers récipiendaires, il est important de vous dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Il y a plus de dix ans de cela, je recevais mon diplôme de doctorat à l'université d'Hokkaido au Japon, l'une des meilleures universités du Japon, actuellement la première université. Je voudrais partager avec vous ce que mon professeur avait partagé avec moi à l'époque il me disait Mustafa San, PhD is only one step and work for the world. Cela veut dire quoi? Le doctorat est seulement une étape et travaille pour le monde. Et vous, chers récipiendaires, je vous dirai aujourd'hui que le baccalauréat est votre première étape. C'est très important de savoir cela. et plus tard travailler pour le Sénégal, travailler pour l'Afrique et donc par conséquent travailler pour le monde entier. Le travail continue et sans relâche, et dans l'intelligence et surtout dans la confiance en vous-même, mais aussi envers les autres, vous mènera, très, très loin. Gagnez la confiance des autres dans le travail dans le respect, l'honnêteté, l'humilité et la patience. Cela vous ouvrira que des opportunités et encore des opportunités au bénéfice du Baol et du Sénégal. Je ne saurais terminer cette allocution sans remercier toutes les autorités ici présentes, ainsi que qu'à toute l'assistance. Mes sincères remerciements au parrain Serigne Mamor Mbacké Mortada et au président d'honneur de l'ACAB, Serigne Abdourahman Baké Kaïnde Fatma. Nos remerciements appuyés et très appuyés vont à l'égard de Monsieur le Président de la CAB, ici Président Pafal, ainsi qu'au comité des sages, aux membres d'honneur, au bureau exécutif et à l'ensemble des cellules de base. Monsieur Pafal, Monsieur le Président votre vision, vraiment votre vision euh, sur la CAP et votre humanisme, vraiment votre humanisme, votre amour profond à l'éducation et à la recherche du savoir resteront à jamais gravés dans nos mémoires, nous jeunes du Baol. Vous avez, vous nous avez montré le chemin, le droit chemin de s'investir pour le développement du Baol. Votre leadership et votre humilité ont influencé la jeunesse du Baol à s'intéresser davantage à l'éducation, à la recherche du savoir qui sont les moteurs du développement. Que Serigne Touba, on le sait, Khadim Rassoul que vous aimez tant, vous rétribue toutes ces années de sacrifice pour la cause de l'éducation, la réduction de la pauvreté et surtout la, la préservation de l'image du Baol. Vous êtes un modèle pour nous, Monsieur le Président. Messieurs et mesdames et messieurs, c'est aussi l'occasion de remercier tous les membres du comité d'organisation, à leur tête Monsieur Moustapha Mboup et Serigne Mourtada Mbacké qui ont travaillé d'arrache-pied dans un professionnalisme remarquable et un délai pour la réussite de cet événement. Je vous remercie. jërëjëf. Thank you very much. une personne qu'il me plaît de présenter, qu'il me plairait de présenter ou qu'il me plaît de présenter, qui figure parmi les 100 femmes les plus influentes de l'Afrique occidentale. Un exemple de réussite, de détermination, mais aussi d'honoration de la gente féminine. Je veux nommer Madame Ami Sarfal et je vous demande de l'applaudir très fort. Elle est une citoyenne engagée ku tudd turam sa xel dana dem ci la grande entrée citoyenne ku tudd turam sa xel dana dem ci événement yu mag ku tudd sa turam sa xel dana dem ci téeméeri jigéen ñu ëpp influence ci Afrique madame Amy Sall Fall la parole. léegi lañ doon wax Escoffier ñu wax ni nañu dugal jigéen ñuy jàng Amy Sall suñu doom ji firnde la ci. éminence Serigne Mountakha Bachir Mbacké yàgg te wér éminence Serigne Ahmadou Badiou Mbacké représentant du xalif général des Mourides et les différentes familles religieuses de Touba présentes ici Monsieur le parrain de la journée et par ailleurs khalife de la famille de Serigne Mourtada, Serigne Mamor Mbacké, président Institut Al-Azhar. Monsieur le ministre Galoba, représenté par une forte délégation, également maire de Mbacké. Monsieur ministre conseiller président de la le président de la Convention du Baol. Monsieur le président de la cellule de Touba, monsieur le président de la cellule de Mbacké. J'aurais dû naturellement commencer par monsieur le gouverneur qui nous a fait l'honneur d'être présent et qui mérite des applaudissements. Monsieur le gouverneur, merci de nous honorer de votre présence. Honorable député, monsieur l'inspecteur d'académie, mesdames, messieurs les représentants administratifs des différentes villes et communes de la région de Diourbel, mesdames et messieurs les représentants ou les chefs d'établissement scolaire de la région de Diourbel. Chers parents d'élèves, distingués invités, chers maîtres de cérémonie, mesdames et messieurs, membres de la presse, chers invités en vos titres et grades, et surtout, très chers élèves, je vous salue. Avant d'aller plus loin, J'aimerais juste demander, et les hommes vont pas m'en vouloir, je veux juste voir où sont les filles, parce qu'on m'a dit que les élèves étaient bien présentes. Où sont les filles? Ma sœur Koumba, je pense qu'on peut applaudir les filles, présidente de ASCOFI, on peut applaudir les filles qui ont réussi à avoir de bons résultats. Les filles, levez-vous. Levez-vous les filles, qu'on vous applaudisse, levez-vous. Les garçons vont être galants, ils vont se lever eux aussi. Mais applaudissez ces filles parce que ce n'est pas évident de réussir et d'être primé. Restez debout et les garçons qui ont été galants, les jeunes hommes, levez-vous également, qu'on applaudisse nos élèves, nos élèves pour qui nous sommes là aujourd'hui. On n'entend pas les applaudissements. Il faut applaudir les élèves. Bravo. je vous en prie. Vous savez, chacun a son rôle modèle, royukai. Chacun a son royukai, comme on dit. Nous, les filles, nous savons l'importance d'avoir une royukai. Et la mienne, c'est ma mère qui est assise ici, que je salue et à qui j'exprime toute mon affection. C'est un véritable honneur pour moi de vous retrouver à l'occasion de cette journée d'excellence où je suis invitée à prononcer le discours inaugural. Pour la deuxième fois, les meilleurs élèves des différentes régions du Bawal sont conviés à cette manifestation. La joie occasionnée par les excellents résultats obtenus à l'examen du baccalauréat par nos vaillants élèves on conduit la Convention universelle du Bawal à vouloir récompenser chacun des élèves qui se sera distingué par une mention à cet examen de fin de cycle. Un élan de générosité remarquable lorsqu'on sait que chacun et chacune des élèves qui aura reçu une mention bien repartira avec une enveloppe de 50 000 francs CFA, un téléphone portable et un important lot de livres Et enfin, ceux avec une mention très bien verront se rajouter à leur cadeau une enveloppe de francs CFA et un ordinateur portable. Ces brillants élèves qui nous viennent de tous les coins du Bawol ne méritent pas moins au regard de leur dévouement, de leur engagement à faire resplendir notre terroir. Bravo, chers élèves. cette volonté réaffirmée d'intégrer le youth empowerment dans la vision de la Convention universelle du Bawal émane de la profonde conviction que le développement du Bawal ne partirait que d'une solution endogène. En d'autres termes, si l'on veut assurer une prospérité durable à notre région, à notre pays, Il faut investir massivement sur la recherche et le développement, la valorisation des savoirs, afin que les jeunes puissent assurer la transition au moment où leurs parents iraient à la retraite. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la Convention du Bawal, vous pouvez être rassuré que cette initiative généreuse participera à rendre davantage fiers nos élèves de leur identité sénégalaise, de leur ancrage dans cette région du Baol qui aura été témoin de leur progression intellectuelle. Merci à vous, Monsieur le Président, qui méritez véritablement un standing ovation pour votre générosité, mais aussi pour tout ce que vous représentez pour le Bawal. Vous n'avez eu cesse de nous exhorter à servir notre pays en misant sur une intelligence collective, sur une force collective. J'aimerais citer l'infatigable président de la cellule de Touba, Serigne Mourtada Mbacké, petit-fils de Serigne Mourtada Ibn Khadim Rassoul. Monsieur le président de la cellule de Touba, Votre engagement est salutaire. Vous méritez de vifs applaudissements, vous qui avez piloté pendant plusieurs jours l'organisation de cette journée en vous appuyant sur un comité que nous saluons et remercions. Nos frères Mustapha Sen, secrétaire général, bravo pour ce magnifique discours. Notre frère Alpha que je salue, le brillant Alpha. Bien entendu, notre aîné dans la profession, M. Halisek, Serine May, qui a été un des premiers à porter cette initiative, et bien sûr, le président de la cellule de Maquet de la Convention du Bawal, notre aîné également, M. Pape Morlissa. Yay, merci. Cher Serigne Mourtada, votre engagement en faveur de l'éducation aux côtés du président de la Convention n'est pas fortuit, puisqu'elle était enseignée par votre vénéré arrière-grand-père, cher Ahmadou Bamba, dans Narjou. La promotion de l'éducation est également l'œuvre de votre grand-père maternel, Serigne Mourtada Mbacké, fondateur des instituts Al-Azhar. Dans Narjou, que je vous invite, chers élèves, à lire qui peut être téléchargé sur Internet et qu'on vous offre aujourd'hui. Serigne Touba donne des conseils de réussite à la jeunesse. Il montre la voie pour réussir à vivre paisiblement. Il vous montre, à travers quelques extraits que vous me permettrez de lire, comment vous pouvez devenir des citoyens du monde capables de construire votre pays. Quelque chose qu'il dit dans ce livre et que je vous cite, ni l'oisiveté, ni le repos ne profitent à une personne qui veut devenir aisée. Persévère dans les études, dit-il, en révisant ce que tu as appris sans relâche. Réduis le sommeil, combat la paresse, diminue le repos, Sois sobre en projet. Sache que celui qui refuse de rechercher le savoir dans sa jeunesse tombera dans le regret. Car quiconque ne s'empresse pas d'acquérir le savoir en s'y consacrant exclusivement avant d'être assailli par les préoccupations n'atteindra généralement pas son objectif et jamais il ne réalisera ses desseins ça, c'est notre vénéré guide qui nous le dit. Dans un monde marqué par l'avènement des réseaux sociaux, où certaines plateformes comme TikTok entraînent des phénomènes d'addiction, puisque la ruse est bien sûr de vous pousser, chers jeunes, à consommer des vidéos à l'infini, la santé mentale de la jeunesse africaine doit être mise au cœur de la réflexion. Ce que les jeunes des pays développés peuvent se permettre parfois, nous, jeunesse africaine, ne pouvons pas toujours en faire autant. En effet, dans la plupart de ces pays, le système éducatif, même s'il appelle parfois à des ajustements, est déjà assez solide pour faire venir des jeunes d'ailleurs. Leur système de santé est robuste. Alors la jeunesse africaine dans sa majorité aujourd'hui, qui est en train de passer ses journées sur ses réseaux sociaux au détriment de son avenir, risque peut-être d'avoir des regrets plus tard si rien n'est fait. Le niveau dans les écoles, monsieur l'inspecteur, malgré tous les efforts qui sont en train d'être consentis par les autorités, par les contribuables, peut être naturellement améliorée. Mais ça, ce n'est pas que l'œuvre des professeurs, ce sera également la volonté des élèves. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a voulu vous honorer, vous encourager, parce que vous êtes sur cette voie de construction et de réalisation d'un pays sur la voie de l'émergence. Le Bawal a toujours été un berceau du commerce, avec l'arachide, Mais cet arachide a toujours été bradé à des pays capables de, la, de le transformer, à des pays capables de profiter financièrement de la sueur de nos pères qui passent leur journée sous le soleil. Ces familles de commerçants, malheureusement, pour beaucoup, finissent par faire faillite car les enfants ne parviennent pas à pérenniser les acquis. Cher Ahmadou Bamba nous recommande de ne cesser un seul jour d'apprendre car le savoir est la vivification du cœur. Un poète a dit, c'est par le savoir qu'on vivifie des cœurs qui jadis ne discernaient absolument pas le vrai du faux. Et le savoir est pour l'âme une lumière par laquelle elle se dirige vers les vérités profondes. ceci montre que la première responsabilité des adultes envers les enfants est de les encadrer dans leur apprentissage du savoir car c'est leur droit fondamental. Si on ne veut pas que son enfant soit parmi des exclus, être soi-même sanctionné moralement, il faut éviter de manquer son éducation. Voilà pourquoi, chers élèves, vous devez être reconnaissants envers vos parents qui ont compris cela, qui ont misé sur votre éducation, qui vous ont accompagné et qui vous valent aujourd'hui cette consécration. Applaudissez vos parents qui sont là. Cette consécration est également la leur. Le cher nous dit également que les gens se surpassent les uns les autres par le savoir et la foi. Et je vous dis qu'aujourd'hui, si des personnes comme le secrétaire général Moustapha Sen, qui a fait ses études au Japon, qui a eu un PhD, est aujourd'hui sollicité, croyez-moi, c'est d'abord de ses compétences de son expertise. Si quelqu'un aujourd'hui comme euh, Alpha Gay peut écrire un livre aussi puissant, un livre que les gens s'arrachent aujourd'hui, c'est parce qu'il a su cultiver le savoir pour y parvenir. Alors, un discours inaugural dure toujours, mais je vais essayer d'abréger, car le temps n'est pas de notre côté. Je dirais juste, nous ne cesserons de louer la vision de notre très cher guide, Serine Muntaha Bachir, Khalif général des Mourides, à qui nous souhaitons une très, très longue vie. En construisant la prestigieuse université de Touba, il nous honore encore une fois à travers le monde et il vous permet aux ressortissants du Bawal de pouvoir bénéficier d'un enseignement supérieur en étant ici, dans dans Nardjou, le vénéré Khadim nous dit également il n'y a de gloire que pour les gens du savoir parce qu'ils sont les guides sur la voie droite pour celui qui la recherche. La valeur de chaque personne est fonction de ses bonnes actions. Les ignorants sont les ennemis des gens du savoir. Alors, chers élèves, comme j'ai l'habitude de le dire, il ne faut pas que nous soyons des citoyens spectateurs, mais acteurs de développement. On a l'habitude d'entendre mais la jeunesse est également le présent, car l'avenir se construit au présent. Réfléchissez à valoriser vos talents, vos expertises, car le Baol a besoin de vous. Le Sénégal a besoin de vous. Pour terminer, je vous dirais tout simplement, comme nous le dit le cher, ne soyez pas paresseux, n'abandonnez jamais les cours Soyez reconnaissants envers vos parents. Tout ce que vous aurez dans la vie, partagez cela avec vos parents. Car la première expression de gratitude d'une personne doit être à l'endroit de ses parents. N'oubliez jamais le Sénégal, ceux d'entre vous qui allez séjourner à l'étranger pour étudier. Aujourd'hui, si je suis revenue, c'est parce que je sais que peu importe où on peut aller, peu importe où on peut aller, si on n'a pas ce sentiment d'avoir servi son pays, on est encore très loin, très loin du compte. Et tous les problèmes que vous entendez aujourd'hui, parfois le manque d'eau pendant le magal, toutes ces choses, comme des jeunes dans d'autres pays l'ont fait pour eux, c'est à vous aujourd'hui de venir poser votre partition dire que nous allons travailler. Et vous n'y arriverez que si vous vous accrochez, vous résistez à toutes les tentations et que vous participez très sincèrement et très activement au développement du Bawal. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie nos maîtres de cérémonie. Chers, on salue également euh, l'ASCOSEN, l'ASCOFI. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Djerjef. Pape Fall gouverneur bi taalibeb Serigne Touba la këram a ngi fii ci Touba mbakke fi lay ñëw fi lay ñëw samedi fi lay ñëw dimanche fi lay màggale Pape ku jara xam a ngi nii gouverneur bi doomi Touba la Touba la dëkk fi la màggee fi la gi waaye gouverneur bi ko yónni Cheikh Bara Fall la tudd taalibeb Serigne Touba kon nag bis bi la gouverneur bi ñëw na fi ak ndomba yooyu yëpp monsieur le gouverneur vous avez la parole. C'est avec un organisé par la Convention universelle du Bawol pour primer les meilleurs bacheliers de l'Académie qui sont distingués dans la section du baccalauréat 2022-2023. Monsieur le Président, vous me permettez d'abord de féliciter très chaleureusement nos brillants enseignants et de transmettre ici toutes mes félicitations à travers le l'inspecteur d'académie à tous les enseignants de la région de Diourbel qui nous ont donné satisfaction pour avoir ces brillants résultats. Au-delà de l'aspect purement protocolaire, cette cérémonie nous offre l'opportunité de réfléchir sur la nécessité de renforcer davantage nos systèmes d'éducation et de formation afin qu'ils soient efficaces, efficients et conformes aux exigences de développement socio-économique. En effet, l'éducation permet aux jeunes de réaliser leur potentiel, ce qui exige le relèvement de l'accès, l'amélioration de la qualité et le renforcement de la gouvernance. À cet égard, l'éducation est fondamentale pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans le secteur stratégique. Elle permet de maintenir notre pays dans le concert des nations en soutenant la compétitivité et en poursuivant aussi résolument notre marche vers l'émergence. Le chef de l'État et le gouvernement du Sénégal accordent une part de choix à l'éducation et la formation. Les réformes et réalisations dans ce secteur stratégique s'inscrivent en droite ligne de l'axe 2 du plan Sénégal émergent qui porte sur le capital humain et dont l'éducation, la formation, la recherche et l'innovation constituent les composantes majeures. Dans ce cadre, l'éducation des jeunes constitue un important levier pour le développement de la nation. L'école les dote également de capacité au plan scientifique et professionnel, leur permettant de mieux jouer le rôle d'acteur de développement. C'est en garantissant à nos jeunes de droit à l'éducation que nous pourrons voir éclore leur potentiel et les voir transformer leur communauté par leur génie et leurs compétence Le parrain de cette cérémonie est un modèle dans la promotion de l'éducation. En effet, L'Institut Al-Azhar, dont il est le président, est un creuset universel du savoir. Il constitue aujourd'hui un pôle stratégique d'enseignement avec une offre d'enseignement très diversifiée qui va de l'élémentaire au supérieur. L'enseignement qui, qui, intègre la formation professionnelle est aussi dispersé, aussi bien en arabe, en français qu'en anglais. Ce projet de Seigneur Moutala, que Dieu soit satisfait de lui, a réussi à former les générations de cadres qui contribuent au développement du pays, l'Institut Al-Azhar est présent à travers le Sénégal et les autres continents, ce qui fait un, un véritable réseau international. Serine Marmombake, merci encore pour votre soutien constant à l'éducation et à la formation. Chers récipiendaires, par l'éducation, vous pouvez vous distinguer, sortir du lot, accéder aux premières places et ravir la palme de l'excellence, quel que soit le domaine qui vous intéresse. Pour cela, il est aussi de notre devoir, nous parents d'élèves, de vous accompagner, de vous donner les opportunités et les conditions d'apprentissage les meilleures, vous permettant d'assumer ultérieurement vos responsables d'acteurs de développement économique et de notre nation. Vous méritez amplement l'hommage que nous vous rendons aujourd'hui. Je voudrais féliciter et vous exhorter à persévérer à maintenir le cap de l'excellence. J'adresse mes félicitations au président la Convention universelle du Bawol ainsi à tous ses membres pour cette heureuse initiative qui doit être perpétuée. Je vous remercie vivement de votre aimable attention. kon ñu ngi jox kàddu gi Serigne Mouhamadul Moustapha ibnu Serigne Cheikh Gaynde Fatma kenn ku nekk loo gàtt gàtt dégg-dégg xam nga Serigne Cheikh taxawaayam ci xam-xam kon nag sant nañu ko li mu def ci ay école ay jàngukaay ci àdduna bi ci Sénégal il a formé la crème de l'intelligentsia du mouridisme Serigne Moustapha nag mi ngi yëkkati kàddu ci kilifaam magam yabal ko fi te mu doy ko sëkk. muy Serigne Abdourahmane Mbacké moom Serigne Cheikh Gaynde Fatma mi nga xam ne moo toog ab jataayam te ba mu dee Serigne Cheikh lim jaal beneen ab liggéeyam sëriñ abibum sëñ fàllu yabal na sëñ mamorum sëñ moodum sëñ jeng borom Touba ca kanam soxna Fatou Mbaye nga ne toog sëriñ abdourahman bi mu toogee di sëriñ Cheikh Gaynde Fatma li mu njëkk a def mooy sagal ñi tëdd barsàq miire 16 ectare armeelu Taïf lu mu ca teg lycée moderne d'un coût estimé à 506 millions liggéeyale ko xam-xam liggéeyale ko l'islam Serigne Abdourahmane Yabal Kane Serigne Moustapha moom soxna Astu Buri bokk ak Serigne Mountakha Cheikh Mouhamadoul Bachir Fatoumata Maam Khary Dieng Yàlla Mbéru Amadou Yàlla Sakar Fane Balay Sibiri Serigne Mbacké Maram Cheikh Mouhamadoul Moustapha you have the floor thank you very much a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim monsieur le président de la convention du Baol en ma qualité de directeur général des écoles de Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma il me revient l'insigne honneur de prendre la parole au nom de son excellence Serigne Moustapha Mbacké ancien ambassadeur chef de la délégation envoyé par Serigne Abdourahmane Mbacké khalife de Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma et président d'honneur de la convention universelle du Baol à l'image de son illustre père qui a fondé la première école à Touba. Serigne Abdourahmane place l'éducation et la formation dans les priorités de son khalife, comme en témoigne la construction d'un établissement franco-arabe dont le coût est estimé à 500 millions de francs CFA avec une contribution consistante du khalife général Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na fi yàgg te wér Cet établissement ultramoderne dispose d'équipements technologiques de pointe dans un environnement propice aux études. Le prochain projet éducatif de Serigne Abdourahmane concerne la construction d'un lycée dont les enseignements apprentissages se feront en français. Monsieur le Président, le président de la Convention universelle du Baol Serigne Abdourahmane vous félicite et vous encourage pour votre projet de récompenser tous les ans les bacheliers ayant obtenu une mention au baccalauréat dans toute la région de Diourbel, ainsi que les meilleurs élèves des Dara. Ce geste traduit votre engagement pour l'éducation et votre volonté inébranlable à accompagner l'État, mais aussi et surtout de féliciter et d'encourager les élèves à redoubler d'efforts pour des résultats encore plus performants. Monsieur le Président de la Convention, Serigne Abdourahmane Mbacké vous assure de son soutien constant dans la noble mission que vous vous êtes assignée. Il vous fait part de sa disponibilité à tout moment pour des conseils pour la bonne marché de votre association, notre association. Chers récipiendaires, Serigne Abdourahmane vous adresse ses vives félicitations pour vos excellents résultats. Il vous encourage à persévérer dans cette dynamique. Il adresse aussi ses félicitations à vos parents pour leur sacrifice, de même qu'à vos professeurs et aux membres de l'encadrement de vos établissements respectifs. Il prie pour que Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde santé, longévité et succès dans votre futur cursus universitaire. Mesdames et messieurs les invités, Serigne Abdourahmane vous remercie de votre présence massive à la cérémonie. Cela traduit l'intérêt que vous portez à l'éducation et à la formation, qui sont les clés du développement économique et social de notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention. léegi kon monsieur Pape Fall di président de la convention université du Baol damay ñaan ñëpp ñu tàcc ko balaa moo jooy jërëjëf jërëjëf jërëjëf aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu tàmbalee kàddu yi ñuy jël ginnaaw bi ñu tuddee yàlla di sant ku tedd ki sëriñ Muntaxa Bachir Xaadim Rasool ñu ñaan mu yàgg fi lool tamit man nag wax moom si kanamu ñëpp du Xaadim Rasool yomb ma ba xam ne damay sant rek sant gi moom ginnaaw nuyoo bi mooy njabootu Sëriñ Tuubaa gi fi toog ah di ci jiita Sëriñ Fàllu moom Sëriñ Murtala góor yàlla moom caatum Xaadimu Rasuul moom mu xam ne ne kenn la doomu aadama yi ni ñu xamee ni tukki mettee muy wër àddina te fu mu wàcc fu mu te fu mu fu mu wàcc daal fa mu toog fa mu wàcc fu mu toog dama fay nekke mooy dal dalal ay nit ñaanal leen di leen digga ñu ne ci jaamu yàlla di leen digga ñu digg xetal seen jaboot ci jaamu yàlla ba ñibbi jot dugaat ab yoom ñibbi kenn mës koo gis mu naa jëndal sama doom ji lii wala sa njaboot gi lii wala sama caat mi lii wala sama kenn lii di ko jënd bitim réew di ko indi Sénégal ngir bakkan kooku tey bu toogee fii ñu naan dañuy wax ci affaire excellence di wax affaire xale yi war nañoo xam ne ñun suñuy jëf nekkul des war a tudd ndaxte dafa nekk jëf ju sotti joo xam ne dañoo ñëw rek di ca di ca di ca jaar muy muy muy jëf yi Xaadimu Rasuul euh, ndaw yi xëy na baax na. ñu wax leen ne matut cinquante ans booba dañ too xaw a tolloog seeni at euh, Touba gi boo génnee ci biir jumaa ji foo dox cinq cent mètres Touba jeex loolu xëy na ëpp nañu bari foo dox tu boo génnee jumaa ji foo dox cinq cent mètres mu jeex Touba li fi dëkkoon ñëpp mën dëkk ci jumaa ji te du fees waaye itam nag ñi ko feesal ba tax Touba mel tey ni mu mel ba àdduna bi yépp euh, jublu Touba ñii ngir wërsëg ñii ngir yàlla xam ne waaye yàlla jaa ngi nii mënuñu see génne ci ñooñee kenn ko nga xam ne biri bi ngay ñëw àndaale nga fi du tax Touba war a mel ni mu mel dangaa ñëw kay barkeb Xaadim Rasul bi ngay dégg nga ñëw daw si ndax nga bëgg mel ni nga bëgg a mel ah loolu nag waral na bari na fi boroom kër yoo xam ne seeni doom comme mu Moustapha seen ni mu ko waxee léegi am nañu seen doctorat ñii ay opérateur économique lañu yu mag ñii ay enseignant lañu bari nañu ay médecin lu ne am na ci njabootu ñooñu te ci biir loolu ci dëkk bi nekk na dëkk bi nga xamante ne bi de alxuraan karim bu sell bi nga xam ne bi mooy njariñu jaam yi mooy tegtal bu wóor bi saa su nekk ñu fi jolli waxtu nekk li nga xam ne bi aussi mooy wërsëgu àddina nit ñaa fi fi na bu ku bëgg ñëw ko bëggul ñëw comme la am màkk rek nga xamante ne bi ne ñii dañuy dem ngir yàlla néegub yàlla ba fa nekk ak alxuraan karim ñii dañoo mën tey yàlla sax waaye nag mënuñu ñàkk jublu ci foofu ndax koom-koom ya fa nekk Tuubaa gii nag lu fi nekk lu tax nit war fee ñëw bu du woon na Sëñ Bàmba xawma ko ndaxte Euh, nit ñi ragal nañu aw tàngoor bëgg nañ ndox mu neex bëgg nañu euh, géej bëgg nañu béréb yu ñuy foy ak mel noonu bu jaamu yàlla moo fi nekk bañ nga xam sa bu yàlla sax ñorul leen dañoo jublu Touba ngir wërsëg bi nga xam ne bi xam ne ne Touba loolu incontournable ba nga xam ne nag wërsëg yooyu ay jàmboot di ñëw bu ndaw yi góorgóorlu jàng am xam-xam ñooñu ñoo koy moom nekk ak ñun ci suñu biir nekk ak ñi fi nekk ci ci ci seen ak nekk ak ñi fi nekk waaye nag di doxee ni leen neex ndaxte koom-koom dafa am doole. ba nga xam ne war ngeen a ci njàng mi bu baax a baax a baax ni ko Serigne Mountakha bëggee moom seen dimbal rek la bëgg ba tax tey ji université bi mu def ko bu bu ëllëgee lu ñuy doxal fi ci dëkk bi ngeen bokk ci ñu koy dogal loolu. tax nañu gën a sëñ Muntaxa tax nañu gën a sawar ci njàng mi ba tax ñu sóoboo ci li nga xamante ni sóoboo nañ ko ci mu demee ne sëriñ Mamor Mbàkke ñu koy moom sëñ Murtala ñu koy jël di ko def suñu parrain dara war lu ko dudul bëgg-bëggum maamam bi nga xam ne bi ci la waajurum nekkoon muy xam-xam sëñ Abdourahmane Mbacke moom itam naka noonu gaynde Fatma ku ne xam nga ne xam-xam rek moom moo ko ñor ab dëkk nag boo ñëwee mu mel ni mu mel ba ñëpp xëy na wax ne barki démb ñi ngaan six millions de personne moo ñëw Touba ci màggal gi ñu naan ñen ñi duñ dem ngir taw bi lu nañu wax ko waaye nit ñi ñoom dara téyewu leen dara mu leen téye ba du ñëw ci mu Xaadimu Rasuul ndax dogal suñ borooma suñ boroom moom moom xol yi ku mu neex ku mu naqari sa xol lam ca def loola danga nga ko doxee moo xittal jaam ñi ci xaadimu rasool ngir seen njariñ ba tax na nit ñi dara mu tax ñu buñ si xaadimu tey ji lee umpalewu leen ne béréb bi ñu nekk tamit béréb yu baree baree bari ci dëkk bi ñi nga xam ne ba ñooy njabootu xaadimu rasool gii toog seeni waajur yi mën nañu fee dëkk nekk feek ñoom te kon tam ne yeyoon nañ ko seen maama ko liggéey waaye ñiy ñëw rek di ay gan lañ ko jagleel seen njaboot gi li ñu nangul seeni waajur ak li ñu nangul teg seen bopp amul genn njaboot boo xam ne gën man nga lool tey lii ku amoon sa doom nekku fi béréb bii sa doom nekku fa say soxna nekku fa seeni mbokk dana ñëw ne leen sa baay ndaw la waaye ñii ñooy ay gor kenn xamut lu ñu doon ku defee ne xam nga lu ñu doon da ngay nax sa bopp suñ bu doon dafa bind wutale suuf yi mu bind daf ko wutale waaye bu ne am nga njariñ lii di mer weñ métal daf ko bind wutale ko waaye lu ne am nga njariñ xeetu ndox yi daf ko bind wutale ko waaye lu ne am na njariñ nangu nga ne sax jur gi nga yor sa kër sax yàlla ay ay xar lañu mais wute nañu kon nañu nangu ne suñ borom moo ñu dimbalee njabootu Xaadimu Rasuul gi ñuy ñaan suñ mun suñ sang bu tedd bi suñ Muntaxa Basiir mu yàgg fi lool te wér tey jile euh, téere yi ñu leen jox ah suñ Xaadim mi nga xam ne bind na ci benn téere di doomi ku tedd ki di imaam képp ku yëngu ci économie képp ku yëngu ci diine képp ku yëngu ci pilote ci politique mat na la maître jàngal la te ñu bari xamuñu moo tax téere bii da ngeen ko yër bu baax a baax a baax parce que kenn doon jàng lu gën a kaw lu gën a kawe waaye nag xam la ca feneen baax na xam la ca feneen baax na day tax gën a xam sa bopp waaye nag bu ngeen bañee leen këf da ngeen fexe ba xam li ci téere yi nii ñuy def nag defuñu ko ngir waa bëgg lenn lu dul ngeen dokk ci ñi gën a tekki ndaxte dëkk bu tedd bii day ku ne xam nga ne li fi nekk ñun ñu ci jéem a yëngu ñëpp dañu ko sagale rek waaye war nañu rusa wax sax ne xam nga ne boo xoolee Touba ca kanam liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéey te ki nga xam ne moom moo ko yore di doomu sëñ Fallou Mbacke ku ne xam nga ne loolu nit ñaa génn nañu diplôme yu gën a kawee yor équipe yu xarañ te mënuñu fee def dañu fee def ku ne xam nga ne li Baye Fall yi def bu déggee ndigal ci defar dëkk bi mu war ne mu ni mu war a mel tey ci wàllu njàng mi ku ne xam nga ne ku tedd ki sëriñ Maam Mor lam ko téyee doxal ko ba muy doxee ni muy doxee borom diplôme yu gën a kawe ci àdduna bi am mbooloo ñi ngi nekk te mënuñu am loolu te école ñu fay génn koo ci gis bu ko siyaar defe ne ab sëriñ la bu làkkee anglais nga defe ne moom ab américain la bu waxee français nga ne kii xanaa dugg bokkut ci bokkut mos dugg ci gox yu kon ñoom li ñu yor mën nañ ko doxal tey jii si Ahmadou Badiou mi nga xam ne bii tey moo def recteur université bi ma boo ko gisee sax xëy na da ngay defe ne kii moom amul lu mu xam te la mu téye dégg ngeen tey ñëpp a ngi coow moom mi ko téye sëñ bi dénk ko mu cee dox ni mu ci war a doxee kenn déggul fu mu defee benn bruit kon ñoom seen mbir mën nañ koo doxal seen bopp dañooy dañoo sagal képp boole ñu ci boole ci leen ni ma koy waxee na ngeen xam ne opérateur économique yu fi nekkoon yépp waxuma la bawal de may Sénégal te yàlla defuroo ñu am àlluwa ju mën a gérer seen business seen liggéey seen commerce dañoo fay amul exception kon fexe leen bu ku bëggee a defi commerce jàngal ku bëgg a tekki jàngal ku bëgg a nekk sa biir moroom xam fa dara jàngal ñun de li ñuy ñàkk ñàkk àll wa saa yoon xëyee dinañ wut aw bind wu ñuy tax a xam dara luy jëmale suñu nekkee ci kaw suuf nekk lu baax ak fa ñu al ëllëg kon Mbàkke Balla ñoo ngeen di sant bu baax a baax a baax léegi nag li nga xam ne moo am mooy gouverneur ñëwul nga daaw ñëwaat nga ren ñu lay wax ne Isma Dioum wax na ko léegi Miss Isma Dioum ah, ci turu président. waaye daal nanga xam ne ñun lépp loo nga xamante ne bilee moo amal njariñ askan yi ñu gis ne liggéeyas na ko fii gis nañu ko nangu nañu ko gërëm nañu ko ba nga xam ne bi nanga ñu ko jot leen euh, président aussi nuyoom euh, yaa Isma euh, ministre conseiller ci suñu mbekk mi ñu am ci seen jëf ki nga xam ne bii ne mooy Gallo Ba itam Mor Aan ñëw taxawal ko fi Mor An li mu wax nag moo sanc convention di Bawol suñu mag la ju baax te nan ñun nag am nañu tey xel mu dal ndaxte sëriñ Muntaxa sëriñ Murtala Koris Bank di ko xam ne kii la mbindum caan ndajoor mi yëpp dacee cee waaye waaye tegginam mi waye faayam bi ak fi mu toll ak fi mu bokk tax na ñun euh, fu ñu lu doon jéem a woyof xeeb nañ ko ndaxte moom day gisul dara ci li nga xam ne bi euh, moom doon na ko te te te doon na ku sës rëkk ci ñu tedd ñi nga xam ne bi ne euh, ñun amuñu amuñu seenu fay moo tax nag alhamdulilah bil alamin sëñ Seex nag mu nuyu sama nijaay bu baax baax Seex Ibra jërëjëf jërëjëf di dellu ñaanal ko tedd gi yàgg fi te wér di wax ne ah ndaw yi ak ñi fi toog ñëpp na sant nañ ñëpp ak comité bi nga xam ne ñu ànd ak sëñ sëñ Murtala ñoom Moustapha ak ñëpp ba liggéey liggéey bi di nga ko liggéey maam faat na nga nuyu suñu abo bu baax a baax a baax ñoo ngi sant nag ki nga xam ne bi la moom itam daanaka rek luñ man moo ñu ci taxawal muy soxna si moom de ñu ngi koy sant bu baax ndaxte yàlla xër na ko ci fonk ay waajur waaye nag li muy fonk fonk waajur sëñ Tuubaa rek ko ñor te góorgóorlu na itam ci àlluwa ji leen di wutloo góorgóorlu na ko ba am ci MBA mais bu ñu ko ci amee li mu def mooy dafa daf koy ànd ak da koy jël. dañu ci wuute gunge pour ñu maa def liggéey liggéey ñu def nii. ami jërëjëf dëgg naa sa discours jërë ngeen jëf Mbacke sant nañ bu baax baax a baax ñu ngi siyaar bu baax a baax ku tedd ki jërë ngeen jëf may woo ñoo ñi am mention très bien dama leen woo ñu ñëw gouverneur de la région moo leen di jox prix bi muy les vingt-trois les le premier le meilleur mooy Cheikh Thioub mi ngi am moyenne 17 33 lycée scientifique d'excellence de Diourbel Cheikh Thioub Serigne Mbacke Xuma Cheikh Thioub ñëwal il est le des meilleurs yàlla yàlla dafa la cet Cheikh Thioub moyenne 17 33 mention très bien série S1 c'est un scientifique lycée d'excellence Diourbel ku ci tege mooy Serigne Mbacke Xuma série S2 moyenne 17 mention très bien. école franco arabe Serigne Mbacké Bousso ki ci tege mooy Oumou Salama Ba série S1 mention 16 96 moyenne mention très bien lycée technique d'excellence de Diourbel ki ci tege mooy Oumy Ñing LAR kooku moo ak yema man ab littéraire la waaye moom ëpp moyenne am na 16 50 mention très bien école franco-arabe centre Serigne Mbacké Bousso. La convention Université de Wes sous la présidence de monsieur Pape Fall euh, et Serigne Moutala Mbacké euh, président de la cellule de Touba et tout le comité d'organisation a été vraiment très heureux euh, et remercie tous ceux qui de loin ou de près ont contribué à la réussite de cet événement. Nous ne finirons pas sans remercier la présence euh, vraiment euh, importante de Serigne Abo Mbacké représentant son père Cheikh Mouhamadoul Mountakha euh, calife général euh, des Mourides mais aussi son fils Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké qui est auteur qui est auteur d'un des livres euh, qui a été donné aux, aux, aux élèves aux meilleurs élèves Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké qui a écrit un livre vraiment intéressant qui constitue un viatique pour les jeunes s'évertuant dans la recherche du savoir à travers cette initiative la convention universelle du Baol a l'objectif d'encourager la recherche du savoir et l'éducation pourquoi pas d'autres Cheikh Anta Diop pourquoi d'autres hommes imbus de savoir originels de la région de Diourbel si on y croit si possible en encourageant et en offrant à nos fils les possibilités de réussir dans ce monde, passant seulement par la seule porte du savoir. Serigne Mohamedoul Badiou Mbaké, le recteur de de, du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim euh, de Touba. Euh, Serigne Abdourahmane Mbaké, président d'honneur euh, de la convention n'a pas été en reste. Euh, son représentant, Serigne Moustapha Mbaké, ancien ambassadeur du Sénégal en Turquie, euh, expert financier et économique, euh, a pris la parole, présenté dignement son frère. On a été ébloui par le discours qu'a prononcé Serigne Moustapha Diomdia, qu'il a fait aussi bien en français qu'en anglais. Et cela rappelle l'importance toute particulière que Serigne Chia Ahmadou Mbaké Gaïné Fatma, attaché au savoir et à l'éducation. Euh, de même, on ne finira pas sans remercier Serigne Fallou Mbaké Ahmadou Moutada pour sa pour sa belle présence mais aussi Serigne Salibou Mbacké euh, Ibn Cheikh Mahamadou Moutada directeur des études Al Azhar qui a représenté dignement son frère qui est le parrain Serigne Mamor Mbacké Ibn Cheikh Mahamadou Moutada qui est vraiment engagé sur le front de l'éducation avec l'université Cheikh Ahmadou Bamba de Ndam qui totalise 100 euh, 000 élèves et étudiants euh, sur fonds propres. Nos remerciements vont également à notre frère El Hadji Pape Momar Lissa Ndiaye de la cellule Cube de Mbacké pour sa détermination et son engagement à servir euh, vraiment euh, sa localité qui est le Baol. Nous remercions également les chefs d'établissement pour leur présence, les parents d'élèves et toutes les structures qui ont participé à la réussite de cet événement. Merci et bonne continuation.